À 221, une autre vision de la télé. Salam alaikum internet à 221 ginaaw bi nga xamante ne voté nañ loi pour indiwaat li nga xam ne moom mooy euh, poste premier ministre ci Sénégal ñu voté ko depuis le 10 décembre à l'Assemblée nationale élection locale jàll na fi élection législative jàll na fi mais boobu ba léegi ñu gis ni euh, ki nga xam ne mooy le président de la République nommeegul ba léegi euh, premier ministre premier ministre sénégalais yi di posé wu la question à savoir kan moo war a nekk premier ministre ak poste boobu noonu kañ lay ñëwaat du ñu def lu dul dem déglu sénégalais yi dégg leen suñu micro ñu wax ñu kan moo fas yéene nekk premier ministre bu Sénégal déjà quelqu'un kuy déglu sénégalais avec il faut que premier ministre donne doon kuy sénégalais bàyyi xel si sénégalais lu ñu bëgg problème Sénégal bi genre pour pare encadrer ministre yu muy nommé en fait parce que tay ji mën na doon premier ministre deug sénégalais eh, sen un problème yu ñuy joy mais su encadré wul ministre yo xamné ñom ñoy ñoom ñooy nekk différents secteurs rek ça pas marché. donc premier ministre doit xamné day doon vrai chef de gouvernement en fait tout simplement. suma ma euh, premier ministre de war a jógee si. Euh, si opposition bi parce que bu jógoon si opposition bi par exemple euh, le bari comme problème yi daan am ni xiro ngaayoo bi surtout ñuy wax parti au pouvoir mo fi tenir euh, yenn yi mais bu nekkee premier ministre euh, premier ministre dafa jógee si si opposition bi peut-être day xaw a pesé wu day wu problème yu bari pour choisir premier ministre parce que si ñoom déjà il faut que nous xam koo xam ne qualité complet boo au moins bu ñu ko tegee dina mën a gérer premier ministre et aussi je euh, li may wax régime mu Macky Sall pour dire la vérité gisuma koo xam ne qualité yi premier ministre war a am gisuma ko fi peut-être que l'opposition la là. Maritou Teuw en fait. Mimi Touré war na mën a premier ministre. Euh, en première position on wax Mimi Touré wala le président Samuel Sar. wala ku le ni Papa Diop. Malick Gakou. Ousmane Sonko. Euh, parce que c'est l'homme de la situation en fait d'après moi a une conviction am dëggu na xam na li mu bëgg te et daf siy def en fait franchement moi je je le vois comme premier ministre parce que c'est une femme forte et je sais que am na capacité ou diriger mën gérer ministre gérer le gouvernement bi. Euh, comme comme comme premier ministre normal comme nit ko xamné nit ñi am autorité dal autorité bo xamné wax fa deug yalla ñëpp koy bàyyi xel. parce que yàgg na yàgg na si xex yéen yi tamit euh, euh, surtout encore xamna na si dara si liggéey na si gouvernement bi loolu motax ma charger ko surtout encore temps yi lu mu nekkul woon euh, ñu faloon ko mu bokk bokkul euh, carrément si élection député comme dafa feebaroon légui nak je pense que mun nañ ko may chance bobu complet na si lépp ci bép bo parce que actuellement mon lu mi xeex pour euh, pour néocolonisation bi donc je pense que mon buñ ko tégué premier ministre dina mën dina mën dina ko mën gérer comme ni ko population bi bëggee pas waxuma à 100% mais au moins dina def ci kéemtalaay kàttanam pour au compte pour au moins population bi yegg ci sen bop comme déjà lima la wax rek mu baye xel ci problème au sénégalais djema encadrer encadrer gouvernement et que les choses se passent bien tout simplement. waaw bon attente moi attente sénégalais yëpp am rek moy meuna meuna doxal structure yi meuna meuna gérer gouvernement bi xam nga euh, déglu population bi déglu attente population bi surtout et puis euh, et puis voilà je crois que c'est ça. Hein. Euh, c'est important surtout notre côté côté côté denrée de première nécessité dund askan wi moom foofu lañ ko gën a xaaree quoi parce que wax fa dëgg yàlla temps yi moom yëpp cher dëkk bi yëpp yëpp yëpp yëpp. même xaw ma guerre côté Ukraine la xaw ma daal mais wax fa dëgg yàlla côté boobu la ñuy gën a quoi en toute honnêteté parce que foofu rek moom métti ah, sinon lépp ngi dox. moom xaar naa ko surtout si dund bu cher bi man mom tout tout carrément dund bu cher bi euh ak problème mbënd bi ak emploi des jeunes tamit jeunes yi moom tamit son nañ si torop moo tax te encore en plus euh, tey déglu naa beneen euh, kii la euh, musicien muy wax affaire passeport boo demee déposer par exemple si ambassade pour voyager problème la loolu moo tax xale yi di jël ay kii mbënd bi quoi léegi il faut que gouvernement bi tamit waaw ñu jël gaal bi loolu moo tax il faut que tamit gouvernement bi di di xool si loolu tamit pour xale bu ñu déposer jeunes yi ak ñeneen bu ñu déposer par exemple pour tukki ñu faciliter leen pour ñu mën a tukki. mu taxaw sénégalais yi comme que bien vrai que moom moo gën a jege président bi mu taxaw mu taxawu euh, sénégalais yi xam aussi tamit sénégalais lan moo leen metti même boo munul defar à cent pour cent nga jéem xam ne ñu xam ne population xam ne carrément kii mu ngi jéem pour ñun boobaa dina neex mais tey jii tamit exemple.

ñom ñep joxe joxe nañ seen avis ci euh, profil yi nga xamante ne moom lañ soxla ci premier ministre bi nga xamante ne moom la ñu fal Sénégal ku nekk aussi joxe na sa potentiel candidat ki nga xam mom lañ moom nga bëgg mo occuper poste premier ministre reste à savoir nak kan le président de la république Macky Sall nara jox poste bobu noonu li ci kanam raw li bët À 221, une autre vision de la télé.